ay ayca ñu nuyu leen bu baax ziar leen jaajafal leen bëggee leen di leen baalu àq di leen baal àq comme ni ñu koy defee rek ci chaîne bu mag bi nee naa la Dakar People ci actualité lay dox tout le temps que dañuy génn a baax mbégte la ñuy am suñu waree jàkkaarloo yéen ci site nga xam ne mooy Dakar People comme ni ñu koy defee rek ay saa laa ci àndal jigéen ju mën góor ayaa moo ne ci waxukaay bi tey nag ñëw nañ fi nga xamante ne mooy écrit parcelle Rock Énergie ak jàmbaar lépp lañ boole xale passé dañoo booloo manko bokk nday bokk baay mais ki ñu toogal nag mooy ambassadeur u passé Rock Énergie ak passé jàmbaar benn la moom nag lu waaye wax génn wax suba bu ngoonee mu tontu la muy góor a mbaxal am na nag lu ko xaw a naqari mais loolu lépp dañ ci indi ay leer dama koy nuyoo après ñu continuer li nga xamante ni mooy waxtaan bi góor a mbaxal nuyu naa la. Eh, maa lay nuyu soxna si la jox sa wàccuwaay di gërëm Aïcha mi xam nga waa Dakar ah. waaw di déglu di leen déglu quoi xam nga yaa ma gën a xam. waaw Aïcha. Aïcha Gora Mbaxal nga nekk ambassadeur Parcelles Rock Énergie ak jàmbaar pourquoi ñu fal la ambassadeur. non du du luñ fal sax ay ambassadeur ak yooyu gars yi koy tudd xam nga nit ku nekk di sonn si ay nit rek. bëgg a goxam. xam nga loolu la rek mais ay ambassadeur ak yooyu yëpp ay tur nii la rek. waaw nit li nga doon yaa koy def sa bopp. waaw man duma taxaw kenn du ma tàllal micro di ma laaj sa tur. waaw wala parce que yàlla dimbali na ma xam nga bi. ak lu dul média yàlla dimbali na ma si quoi kon sant rek. mën nañu xam kan mooy góor. waaye góor may nii rek xam nga dëgg Cambérène. Mhm. xam nga yaroo parcelle. Mhm. nekk parcelle yaroo Cambérène. Mhm. xam nga defee lépp sama enfance côté parcelle. xam nga noonu la daal. waaw góor dañuy gis contre Ama Baldé ak Modou Lo. Pape Sarr dafa am lu mu waxoon nga am loo ko tontu loolu am ampleur combat bi tolloon foo xamante ni combat du coow la. combat la boo xam ku ci toog moom ngay waxtaane ngeen jóge ci Ama Baldé mu mel ne li nga waxoon yëpp dëgg dëgg la de am non man da kenn du ma vaar man kenn du ma vaar barke alxuraanu karim kenn du ma vaar kenn du ma wax lu dul yoon billaahi wallaahi man duma demee bay wax damay wax lu ma wóor ak lu ma maîtriser ndax man dama ànd ak Modou combat Ama Modou commencement préparation ba fin man kenn dara ump ma si moo tax lu may wax dama koy xam parce que loo xamul bu ko wax suba da lay vaar wala da man li ma wax dama koy xam parce que alxuraan pourquoi nga taxawoon am risque taxaw ci baada écran bi wax lu la safak booy siin te li nga wax mën nañu wax ne li nga war am pourquoi risque boobu nga amoon non du risque du risque nit day wax li mu maîtriser ak li mu xam man làmb du ma si gan yuuxuma nag wala taxaw fenn di nangam gars yi ñoo ma xool ñu ne ñu xam ne man yàgg naa ñu ma jox ma man lu ma wax dama ko xam man lu may wax dama koy xam waaw bu baax Modou loo jóge ci bis contre Ama di am ci ndam duggaat pikin am na fa 2-0 bu daanee Boy Niang mu nekk 3-0 coow li combat bi coow li fi coow li toll combat bi amul ampleur waa Pikine ni ñu doon waxee contre Ama Baldé waxee wuñu ko te gis nañ ba tey waa passé ñu ngi coow di wax. waaw loolu du la wax 2-0 ak 3 parce que ëpp na 2-3 koroog Modou mu ngay wax signature bi Boy Niang di wax loolu mu ni ko Cheikh Niang mee toog ak euh, Babacar Ndour xaw ma nan bu euh, am na ku mu fa daan ko Bouba Diop buuba Diop mu ngi koy wax kon ëpp na ñaar ak ñett. waaye bu limee ñeent la 4-0 la te cinquième bi ak laay béy 6-0 lay doon xam nga sixième bi mu ngi ñëw xam nga maa ngi gis ku mel ni Cheikh Niang muy siisu xam nga di jéem a waxal moodu gis nga euh, nit du soxor Cheikh Niang dafa soxor te Modou du ko tontu kenn du ko wax fii lu muy wax bu ko neex bu ko naqaree Modou moo ko daan biir Taïba ñëpp teg seen bët bëraloo ko ba sonn boobu moom moo doon mbër bu mag Modou doon mbër bu ndaw Modou bëraloo ko ba bëgg ka ray foofu mu jébalul boppam mu jugee foofu di wax ay saa Touba tey li ko yàlla def moom la xam nga saa Touba bu nekkoon mbër tey yàlla dimbali ko mu man dara si ay ñaan kon nag ka nangul moom lan la saf moom lan la moom daa saf mbër moom daa nekk moom est-ce mbër la est-ce mbër la xam nga loolu ñu koy si Modou kenn du wax le roi des kon kooku bu ko tëkkaleel sa bopp xam nga nan nan bàyyi yenn détails yeeg affaire yi te jéem a lijjanti seen pigin boobu tas. xam nga nan lijjanti Pikine boobu tas xam nga nun ko rafetale ba combat bi booy ñaaw mën a ñëw am jàppale ndax bu amul jàppale dina gën a ñaaw si moom day ñaaw mais day gën a ñaaw waaw nan dajaloo xam nga nit booy waxal ay nit day fekk yow nga ne nga correct xam nga fekk yow sa vi stable mais yow nga topp si ginnaaw nit di dang-dang yi Modou toppul si kenn di dang-dang Modou est le roi des arènes Modou mooy roi bi ku mu neex ku mu naqari saa yu waa Pikine yaakaaree ba ngemb yuuxu Modou ñëw ni leen du noonu combat bi passé loo déggul amul ñoom seen combat saful Modou Ama saful saful Pikine mooy loolu nan waxante dëgg xam nañ lépp saful ñun ngay neex mu saf ñun waa parcelle lay neex mu ñu safal leen da ngeen yaru ñu safal leen ngeen yare di ñu bàyyi leen nii ngeen mel waaw wala boog waaw. pourquoi li Cheikh wax naqari la. Cheikh Niang li mu wax naqari wu ma de darul ay baat yu rafet. parce que xam nga la fan la may naqare bu daanoon Modou daan la nga koy wax leneen du ma naqari <laughs> waaye yow ñun daanoon waaye ñun yaay jandal men. est-ce que ni ko leen déstabiliser ci combat bi rek. kooku moo gën a tuuti pour def loolu ngay wax. ñun dañu mën a déstabiliser Cheikh Niang kan lay déstabiliser Cheikh Niang daa am mat ba ñu déstabiliser. barke alxuraan matul. matul waaw eh, anyway waay. <laughs> rek. lenn laa leen wax waa pikin lenn laa wax staff Boy Niang lenn laay wax sunu papa dégool moomu di papa booy Niang muy nit ku baax yaa ngi dégg lenn laa leen wax Modou du Balla Gaye ku mënul daan Tapha Tine mënoo daan Lac de ah yàlla dimbali la combat ak Balla Gaye ni baata du balagay bu baax bi nekkul Balla Gaye bi nekkoon digg ndënd nekkul Balla Gaye bi pare woon ah nga ñëw bu dee looloo la jay ki Modou du ñooñu Modou dafa pare barki Seydina Mohamed kooku dafa pare xam nga nan waxante dëgg kooku dafa pare xam nga nit ku pare entraînement nga koy xamee ñoom ñoo gëm gàllaaj Modou gëmul sax yooyu bii passé nag bett na leen ak beneen facette ñu ngi xaar facette boobu ñun dañuy dajjuwaat beneen paquet <laughs> lu garaaw laa lay tegal nii xaar leen nu rek xaar leen rek ñu ngi ñëw. ndax nee nañ waa parcelle mënuñu wax fi waa waa Pikine seen voix fi mu toll waa parcelle toll. soo bëggee dégg dégg combat Ama Modou moo gën a garaaw Ama Boy Niang moo ampleur bi daw gisoo ko xanaa heure nii nii nii nii nii nii nii nii Ama Modou ngi wax fu ne toj na Boy Niang Modou est-ce ampleur tey sa nga wax sa akulaay taala est-ce que géej nga ampleur déggoo ampleur. kon bu nu fàtte waaye nga naan lool bu nu wax lool. mais pourquoi ampleur bi amul Pikine gi boo Modou tas la wala. xanaa seetaanoo Tapha Tine Eumeu ko. ah itam da lay yee. Mhm. quel est le problème fondamental nan ko wax. mais Modou tasul Pikine. Modou loolu ku ko wax da ngaa bëgg wax Modou daa tas Modou daa dem Pikine jaxase kenn Modou daa dem Pikine def dal Modou toog parcelle. entraîné tëdd na la noppi ànd ak ay supporter gëmloo ay supporter dem daan duma leen daan leen nga naan tas Pikine kon daan leen mooy. ku dee kun daan tas kon ne dinañ kon ne bii di ñëw mooy tas tasar tas tasar maa la wax loolu ngeen di waajee contre Ama Modou ak Boy Niang numéro la ndax doomu ngeen di taseel. secret la moo tax ma wax parce que xam naa ni géwël yëpp dinañ ñëw pour sot parce que instant yi doyal nan comme li Yékini waxoon. seen doomu na gars yi dañuy soxla roi bu bees mais ñun duñu Yékini duñu ñooñu. Mm-hmm. Modou xarañ loola. dañuy dajji beneen paquet beneen facette la ñuy ñëw. Mm-hmm. surprise mm-hmm. Ama Boy Niang mënul daan Modou. c'est impossible mënul daan Lac de Guiers. Boy Niang mënul daan Tapha amul jëre bu daan Modou amul xeex bu daan moodu doon nañ wax ama Modou dóor mu daanu Boy Niang boo moytu yow la ñuy dóoraat Pikine nga daanu. est lii ma wax Boy bu moytuwul dañ koy dóor mu daanu teel lii ma la man kenn du ma vaar Boy Niang boo dañ lay dóor nga daanu kenn du ma vaar suba am na nag. li ngay ñëwee nii ak li nga préparé nii bu dee moom nga indi dañ lay dóor nga daanu waaw ay calcul yooyu ngay calcul amu fi boo calculer ba jël coup menton ba jël coup moodu menton calcul mental da lay réer dinañ la ne deux fois deux nga ni trois maa la wax loolu. mais bul fàtte ne Boy dóor mu daanu. Boy Niang fii lay bëree Zoss taxaw cinquante minutes mënul bëree Zoss moom mu mujj jël initiative plaqué mu daanu muy dóore ah tamit wax leenu leneen waaye baa leen di tagg mbër lu mu amul Boy ñaa amul li ngeen di wax champion la mais amul li ngeen di wax. Pape Sarr dégg nañ ko mu ne Modou duñ ko seetaan mu daan euh, Eumeu Sène mu daan booy mu daan Ama Baldé bëgg ñëw daanaat Boy Niang. Eh, Sarr sama copain maa ngi koy nuyoo passage kooku nit ku baax la gis nañ lu rafet yi muy def Pikine yàlla na ko yàlla fay nga lu mu wax. Pape Sarr dani Modou dugg na pikin daan Boy Niang daan euh, Eumeu Sène mujjee daan Ama Baldé xam na nee am na fa deux points booy ñaa bi mooy troisième point bi te nee na waa Pikine waruñoo seetaan Modou Lo dafa am trois points. waaye romb bu dee trois points la romb nañ trois points kon foofu juumte daa am ku daan foofu laay béy yaa ngi dégg daan fa Bouba Diop yaa ngi dégg daan Ama daan Eumeu Sène ñaata point la kon foofu doon juum nañ tëb loolu entre parenthèses. mais pourquoi ci combat dan leen man dan xam dan dem ba dan yaakaaroon ni woon kin gënoon yaakaar ni moo man Modou moo mën a daan Modou moom leen andi ñu daan looloo tax seen yaakaar. mais dese ngeen beneen. duñ wax dañuy bañ ñoom duñ wax parce que xam na lii ñëw ku daan wax ban jox la nga ban jox la sa wax boo ñëwee doo waxaat ñun ñoo war a wax. mais pourquoi Pikine ampleur bi war a am ci combat bi amul ci combat bi ndax kuñ ne Boy Niang 2 ngay taseel Pikine dañ daan gis dañ daan mànkoo bokk nday ak bay mais dañu gis combat bi mel ne am na ci ñenn ñoo xam ne ñu génnee seen loxo ci combat bi. ah loolu ah, loolu nag waxu waa yëfu waa Pikine la de man parcelle la xam de <laughs> bu dee am na ñu fa génne man du ma man man moom du ma nit kuy yàq. am na ñu dégg ne combat non xam nga xam nga détail yooyu man du ma si nangu dugg boo ma laajee parcelle bo ame problème bu ñëwee naan la lii yaa ngi dégg mais Pikine bu dee daa am problème seen problème la yaa ngi dégg seen combat buñ ko deful ampleur seen yëf la mais ñun waa parcelle pare nan fépp fatt nañ fépp pour muy leer waaw bëri bëri la pare nañ fépp combat bi surprise duma si wax benn site internet nu ñuy def daaw bii paas dama leen wax ñu bari ñëw am am lu si feeñ mais nanguwunu mais dama leen di may loolu du leen may bii ñooy daan nag bu soobee yàlla dinaa leen dinaa leen cofal nag boo leen bëggee dégg-dégg boo ñaa limu muy bëree calcul bi mu yaakaar li nga wax si Modou boo ñëwee Modou boo ko moytuwul Modou da lay dóor nga daanu calcul mental bi nga bëgg a teg baaxul boo ñëw Modou di la dóor ngay daanu téye leen lii ma leen wax maa leen koy wax sànq ba léegi la répétition est bi mooy ñaari yoon ma leen koy wax. est-ce que Modou Lo ñeme naa taxaw naan Modou taxaw Ama lan lan waxoon Modou du xeex ak moom da koy song benn bëreet Boy Niang Ama ak ëpp nga muy taxawal xeexal c'est le roi des arènes ki man si làmba ji la. Mm-hmm. Modou Lo pourquoi mu bëgg a moo leen man foo teg ne moo leen man moo leen man loolu du ma si loolu mooy loolu kenn daanu ko fa moo daan ñëpp ku daan ñëpp kay yow la yàlla def nga man. am na fa 4 points de. wàññi. ah yéen a ngi waaw mi ngi Pape Sarr ñoo ko wax ne am nañ fa 2 points sax. ba euh, lu ak kii ak Ama Baldé. waaw dal bu fekkee. la Modou. Mhm. boo leen bëggee waa Pikine li leen wax bu leen doyul Eumeu boobu ñëwal gembu Ama na ñëwaat ngemb bu ñu jugee si booy ñaa ñu may leen bis boobu revanche. ñeme na loolu. barke alxuraan day doon sang am déet waaye bàyyi ma waay booy ñaa sóorunu dara si moom. dun moroomam lépp lan ko ëpp. waaye lan mooy bëreegul. waaye bàyyi ma waay. Ah. bopp yanuwul bët yanuwul waaye xam na lu bopp anden lan ngay wax waa leen waaj leen xam na ñu ngi ñëwaat comme dab ñoo ko fa am <laughs> xam nga bii passé Ama dafa maa ko fa am uh-huh. ñoo ko fa am. <laughs> mais dégg naa Modou Lo instant bu ci génnee maire maire Pikine lañ koy fal. non jox ngeen ko bi waay ki gën a ki gën a nooy Pikine la dese. Uh-huh. ki gën a lese muy Boy Niang. Uh-huh. loolu du dara. Boy Niang dara. mënoo dara da lay nax nag. boo ñaax dem bàkkoo mu neex su feccee mu neex su bëree mu neex. bàyyi ma waay nga naan na def lépp. jërë misi yaa nga làmbaay xaw ma nan lan di waaye nan lan koy waaye sax ah booy. nan lan koy waaye booy. ah booy. waaw waxal ma dégg man du dem fii laay toogee booy ñaa esat ngay tëddee. <laughs> soppi nan waay bi booy doo dem waaw non non xam na lool non non ah, ah, ah. mais wax na dëgg ki kay ki kay wayal sax gel bi way gel bi waay dëgg la waay gel bi wayal booy ñaa Modou Lo mooy mbërëm Modou Lo la faral ay na doon na doon doomam waaw dégg nga. du géwal bi laay wax olof la de booy ñaa yow rek doo géwal dégg nga booy ñu ngi wax nga ni waxal. gis na xam ni moom kese du géwal. Modou Lo ay géwal doo ko dar. ay badambaay ak bari nan daal. te booy ñaa lim foog du am de. xam nga Pape Sarr mi ngi yor laami ñoom fi mu toll nii Pape Sarr ñoom ah ma bàyyi ko si biir xam nga waa Pikine waa Pikine dañoo yaakaar ñoom moom làmb ji. mais bis bu arbitre bi diggante Boy Niang Modou ba géwél yi daan Modou Lo xam ne Boy Niang dong du géwél barke borom Touba. ay faramaaren dong fi ne gars yi wax leen boog yuuxu leen ana géwél yi ana géwél yi. <laughs> gis nga ni mu neex am am <laughs> gis affaire bee ngi neex gis na gars yi ñuy di wax. waaye bàyyi ma géwél waaye lamb du géwél lamb gën a pare la. gën a pare la bu dee ay affaire nan génn affaire xeet si lamb. ah barki démb soose bee ñëw bu géwél bi ñëwaatee ni soose bi def ñu def ko ko rek. bu dee tuus mooy lamba ñu dee Modou Koro lu rëy lu tuus esaat ba ñëpp kontaan Modou Mbaye Mbaye si Malick taalibe Cheikh bi Mbaye si Mbaye ah loolu loolu lan moo ko dàq. booy ñaa parel booy ñaa am bu nga xam ne musoo ko am sa àdduna bu de li nga daan Balla Gaye nga jàpp mooy ñun duñ fooyee entraînement duñ fooyee dara si làmb ñun làmb rek lan am. billahi wallahi li làmbaloog waxoon ama Modou mboot la tabaxee këram nga kay mboot booy ñaa am nga komba parel fépp bëggunu la bett bëggunu dannu sot bëggunu xamoon na li ngeen di mooy xamoon nan ko waxoon naa leen contre ama booy ñaa taxawal ak bëre ngir yàlla yàlla na booy ñaa taxaw bëre. ah mais làmbam yëpp day arrière di calculer ni mu def taw ni mu bëreeg tafaatin bëreeg ak Lac de yooyu foo nekk dala muur dala fay fekk pare lek yow yàlla nga ñëw rek pare laa lay dénk nag amul leneen lu ñuy. pourquoi yàgg Pape Sarr bu Pape Sarr xëyee wax suba nga gont. non non non non loolu amul Pape Sarr sama waay la yàlla doole nanu boo xoolee barki démb Ndiaye booy def na benn geste bu rafet. defal Paate Balde benn bando fii si inter 15 lamb la woon. comprendre nga Modou Ama la woon foog ñu jaay combat bi jaay noon ko xam nga Pape génn fee ma génn fee lu ne am si mais après ñun ñëpp ñoo nekkaat ensemble ñuy demalante di ñëwalante kon warul ñaaw Pape yëgu ma ni sax génn na yaa ma yëgal ni génn na comprendre nga mais bu génnee xam naa ni du lii ma wax du ko wax. ah daa wuti daa woot moo woote wàll. ah contre Ama woo na waa Géejawaay bi waa Pikine rek nga woo Sarr <laughs> bàyyi sama copain waay. <laughs> Modou Lo lan ah, non pare na fépp kii ku ko xool ni muy entraîné gis ngeen ko léegi fi mu nekk nii ñu ngi roog ni nii toog mu ngi si pare nan mhm. xam nga mooy gërëm Mansour Ba dafa def barki Demba Ndiaye fii benn lancement mouvement borom jàmbaar production Mansour Ba nan ko bàyyi xel mu ngi jàppale jeunesse su parcelle mu ngi jàppale jeunesse su Cambérène mu ngi jàppale jeunesse su Patte d'Oie jeunesse Grand Yoff jeunesse 22 Grand Médine Mansour Ba nit ku baax la ñu ngi woo jeunesse su parcelle bépp ñu ñëw taxaw ko si lii muy yëngu mouvement bi ak ñoom Papa Sow ñu ngi leen di gërëm ñoom Assane staff bi yëpp comprendre nga di gërëm nag waa Rock énergie bu baax ak waa jàmbaar ñoom coach su lato ñëpp ñu ngi leen di gërëm xam nga di wax ni dana am benn soixante-douze heures muy ñang baalo ñang baaloo dama yor benn soixante-douze heures moo ko war a defal muy le 22 23 24 ñu ngi siy woo ñëpp ñu ngi koy pare di gërëm nag booy siin bi nga xam ne moo nekk sama wet xeebalul ma sama dara lu ma woote ak lu ma fekk mu wuy si ma muy champion ay fan yu néew am na combat yu ñu koy waaj a jox xam nga maa ngi koy gërëm bu baax di gërëm naar mi ma àndal waa Cambérène yëpp maa leen gërëm booy yëpp taxaw xam nga grand yi yëpp waa xam nga di gërëm di ñaanal mooru yàlla na ko yàlla jàppale mooru yàlla na ko yàlla taxaw nit ku baax la jox nu cër bëgg nu saafoog ñun lu nu wax mu ni baax na xam nga yàlla na ko yàlla fay ñoom Pambay nag coach yaa ngi dégg laay pédagogue dafa am combat yàlla na ko yàlla may ndam ñoom daam su ngeer xam nga booy kii euh, comment booy sëy jàmbaar Mbacke Faye Maadi boo yëpp ñu ngi leen di ñaanal xam guy gi di ñaanal ñëpp ak bébé rëg rëg di wax yàlla nañu yàlla jàppale parcelle yàlla na fi jàmm sax xam nga lii lan xam ñun fair play foo làmb la di gërëm waa Dakar people di gërëm nag le ministre des sports moom mi yor wàllu làmb lii ñuy yow wàllu football ministre des sports sama mentor sama kilifa maa ngoy gërëm bu baax gërëm ñëpp nag ku ma limul rek damaa juum waaw ku ma limul damaa juum gërëm naa ñëpp sant naa ñëpp daal yàlla na yàlla def jàmm jaajëf waaw yàlla na jàmm xew fi <laughs> ayca ayca booy siin yow tamit nga dolli ci rek booy dolli ci. Ameth Lo wala ñu ñu kontaan. baax a baax kooku mooy ki nga xamante ni mooy Alé Mbaxal di ko bëggee di ko ziar bu baax moom nee la mooy mooy mooy ki nga xamante ni waaye xëy suba wax Pikine rek bu ngoonee mu tontu la noonu la demoon ñu ngi fi nga xamante mooy Parcelles Unité 15 jàmbaar ak waa équipe roog énergie ñoo fi entraîné chaque jour ñoom ñëpp dañoo mànkoo bokk ndey ak baay Modou Lo waram combat le premier janvier incha allah moom ak ki nga xamante mooy Ama ne yoon ci beneen émission ci beneen spécial lamb bu jërë ngeen jëf